mbokk Sénégal maa ngi nuyu ku ci nekk ci turam ak ci santam di ci diina jiital kilifa diine yi ak kilifa aada yi ak sunu président bi nga xam ne li may wax moom itam ci la bokk maa ngi nuyu aussi ñi nga xam ne ñoo yore sunu justice ndax li may bugg a wax itam ñoom itam ci lañu bokk ku nekk gis na li xew ci sunu réew at yi passé ba léegi ba ñu dëgmal affaire élection ku nekk gis li ci xewagum mais dama leen mus di wax ne man dama gën justice dama gën yoon commencé ko ci Ousmane Sonko nee nañu yoon lañuy doxal doxal nañu yoon nee nañu ba jàpp ko. tuumaal ko tëj ko kaso jomaay ñu kazalika Cheikh Oumar Diagne kazalika Moussa jóg kazalika ñu def loolu yépp ne yoon lañuy doxal ñu nangu ko itam ñoom itam ñu ànd ak seen dignité toog ci kaso yi ndax ne nañu yoon la ñuy doxal ñu ñëw ci affaire élection yi ku nekk gis na li fi xew lu musula xew xew fii ñu ne yoon la doxal ñan ñoo koy doxal juróom-ñaari nit ñoo xam ne ñun ñëpp suñu yaakaar ci ñoom lañ nekk ndax ñoom ñooy justice gannaaw suñu borom ñu doxal yoon boobu ba ñëw fii ñu commencé nag naan yoon boobu ah xaw ma ndax dinañ ko continuer wala duñ ko continuer wante li ma dégg muy xew wala ñu koy wax wala ñu koy rumandaat muy affaire u pousse élection yi mu bañ a am ci bés bi mu war a am loolu jéyee ji mu mun a indi ci suñu réew moo tax ma ci sama kàddu yi pour artu ñi nga xam ne ñoo yore yoon ñun li ñu tënk mooy sunu constitution sunu constitution li mu wax benn rek la wax kaa bu mu wax ne moom mën na tax du ñu defi élection mooy kenn ci candidat yi ñaanuma ko suñu borom faatu comme nag dañuy doxal yoon boobu ba léegi ba tëj ay nit kaso ci yoon dax ay nit ci élection ci yoon defe naa ne buñ ci tolloo danañu def ba doxal yoon élection yi am ci bés ba mu war a am te nag président woote na walla ay nit sàkku nañu pour mu rencontrer leen buñ cee dem itam nañu xalaat ne suba dina ñëw dem ci loo xam ne da nga cay dem te say doom nekk ci kaso ba kenn waxagul seeni wax li xew ci élection yi te ñëwagul am te kenn waxu sa ñu ne dañuy dem ñun daje pour wax pour dax ay élection wala pour wax pour naka la yu saafara lii waaw loolu soo ko defee ci fan nga koy teg ci dax constitution bi teel ko teg ko fële daal di ne ñun ay nit mun nañoo toog rek waxtaan ci suñu biir daal di ne constitution bi teg nañ ko fële donc nañu dax élection yi nañu def lii loolu dafay indi jiix jaaxa ci bopp nit ñi te dafay indi incompréhension xam nga nu ñu koy wax ci wolof incompréhension boo xam ne entre nit ñi ak justice bu ñu gëmoon justice dem suba sax mun nañ ko weddi mooy tax ma ne li may wax dama koy jëmale aussi ci ñi nga xam ne ñoo yore justice ñu xam ne doxal nañu yoon ay at a ngi nii nee nañu doxal nañu yoon ay at a ngi weddiwuma ko man mii doxal nañu yoon ci sama kaw weddiwuma ko d'accord naa ci ñëw nañu ci élection yi def nañu li ñuy def li ñuy def am na nee nañu yoon la ñu teg moo tax ñu def loolu waaw kuy doxal yoon boobu ba léegi xanaa doo ñëw ba nga xam ne ñu ne élection yi fii ak ay fan la nga ne da dangay doxal yoon doxal yoon boobu mooy lan da ngay jël constitution bi teg ko fële daal di def li nga xam ne mooy dax élection yi pour lan pour ne pour jàmm am ci réew mi pour jàmm am ci réew mi lenn rek la ñu def élection yi ci waxtu bi ñu ko waxee ne ci lañ ko war a def ñu def ko ci ci jàmm ñu koy organiser xam nañ ko ñu def ko ci jàmm ñu bañ ci benn dugal benn ñu njaaj boo xam ne suba dafay indi jiixi jaaxal ci réew mi loolu moo doon kàddu yi nga xam ne bëggoon naa ko wax jëmale ko ci sunu président jëmale ko ci justice jëmale ko ci kilifa diine yi ak kilifa aada yi ku ci mën a wax mu wax ci ndax histoire daf koy retenir wax ci pour que élection yi ñu def ko ci date bi ñuy waxee ñun ñëpp Sénégal ñu am jàmm maa ngi naa balu ñëpp di bal àq ñëpp di balu ñëpp bu fekkee ne sama kàddu yi kàddu yu jaarul fi mu war a jaar jërëjëf